Question des affaires de la cité opérateur économique enseignant Comme on donne, d'abord doon ko Jakarta on nga cee xool am fa représentant pour que au moins pour une seule fois Kaolack a balise yoon bi ñu dem parce que jor le suñu Yakar, dénk ko ñoo xam ne nii lan nous, wax ñun dañoo bëgg ngeen jàppale ñu pour président de la république jox ma poste bu ma joxee poste rek danaa leen jàppale moi je pense que loolu moo war a jeex ñu jox la poste amatoo jotu nit ñi suba ñu rocc post bi kenn du la gisati muy renouveler ah kon nag tey nit ñi accusé naan dañoo bëgg a defar Kaolack pour suñu njariñu bopp mais ñoom déjà ñoom dañu jël ñun suñu njariñ bëgg ko jariñoo te bëgg mu président la république li may wax ñoom ñëpp ci télé laa koy wax gënuñ maa bëgg président de la république gënuñ maa am accès ci moom gënuñ ma koo jege Diouf Sarr wax na ko fii bañ koy jàppale wala ba ñuy maandu ci ku koy jàppale yemale ñëpp ndax loolu lañ mas doxe ñoom ña nga feneen te xam nañ ko Aku nga bëgguma di xuloo waaye dinaa leen wax ñoom ña nga feneen suñ toogee tey nag naan ñun ku président wax rek moom la ñuy faral ñàkk wóolu sa bopp c'est parce que dégg naa benn ministre bu waxoon am solo ne ko président bàyyi ma bu ma jox dara bàyyi ma ma dem gagné bu ma gagné nga dog maa jox ndombal tànk c'est parce que loolu muy nit waaye toog naan président ku mu wax rek président la république falu na ba noppi mairie c'est des affaires su doon président la république bu suba mu projet de loi bu ko neex ne may nommer maire su fekkoon tay mom dafa bëgg ne maire mo fi nekk mu def ko loi bi may nako ko suba bu subaa mu wote loi ne may nommer maire mais di que na askan wi na tànn leen seen conseil conseil tan maire je pense que li gën ci askan wi ci ñëpp ñu gënne président de la république ci lolu ñu xam ku fi nekk maire ci Sénégal mënoo def lu ànd ci politique bi président de la république Macky Sall teg sinon doo liggéey sinon doo liggéey kon looloo tax ma ne nañ bàyyi di ñu intoxiqué ci ay caaxaan président la république xeexal na boppam ba jot réew mi kenn jox ko ko ku dugg ci carte bi di voté photo nga gis votel ko teguñ photo keneen ci gannaaw élection maire fi des nañ bàyyi population bi ñu tànnal seen bopp maire maire bu taxaw dem boote ci gannaaw président de la république mu jàppale ko mu liggéey réew mi.